aca premier demi-finale poids lourd baa ngi noonu Doudou Sané Ndiol Géant bu Bargny samedi la ñu mujjee daje Mbamloog Doudou Sané moo ko daanoon foofu benn fan lañ ca teg tey ñu ñëwaat Fimela lundi waaw waaw 16 janvier 2023 ñu toog ba xam lamb nan lay tëddee tey diggante Doudou Sané eh Doudou Sané faxat na ko eh bii combat Ndiol Géant Doudou Sané yee Doudou wane ko noonu waamee li lan la vite fait bien fait maintenir na ko Doudou Sané daanaat na ko waamee li lan la nii